faa nga ni faama nag ah nit bu baax day neex a waxal nag wax dëgg yàlla nag dimbali ma ngir yàlla yow ñoo nekk ci kër gi sama yi man yaay sama wéttal piccee ah tamit faama la ñàkk jom yow billaay bu jom doon jaay naa la ko jëndal yow ni jaay sa ñàkk jom gi nga ñàkk jom pour lan la yow kañ nga may bàyyi bàyyi ma rek. yow bàyyi ma rek nga toog jàpp sa ñàmbur nijaay fat nga ma de nijaay sonal nga ma su ma jógee ci lii rek nga yóbbu ma ci neneen la ca maa la tooñ xanaa ki ñëw maa la tooñ baal ma kay baal ma baal yàlla man lii lii du sama njuumte sama njuumte mag la lépp moom la man wax naa wax wax naa guddi bu ji man bëgg ma ñaan faamu dong laa bëgg képp man yow dong laa bëgg bëgg ma kenn kul kul yow kay xaalis ñax na yow sax amoon droit di ma baal àq ndax sama nijaay la baal ma àq de. ah waa gaa ngir waaye baa yëg nga ne déglu ma rek. ah une ah, naa la baal naa la baal te maa la war a baalu ba yow sama xarit nga waaye boo nangoo leen rek. baal ma ñu nekk ci jàmm. yëg nga ne kër gi doo ko génn di dem aya ji. am loo ci am déedéet xa zéro xalaat amul. Ah. waaw su nekkee nangu nga rek amul benn problème ñu nekk ca la ñu nekkoon sama gaay sama xarit nga di ma nijaay mi yow yëg nga ne nag doo génn kër gi dem ay xam nga loolu waaw bu loolu nekk rek ñu nekk ci jàmm waaw loolu yëpp rek aywa ñu nekk ci jàmm du dëgg waaw waaw aywa nekkal ca la nga nekk man sa génn dem génn mburu lan te xale yi nekk fi ginnaaw ay jàmm nag ah xam nga man bëgguma di xuloo ak yow. man xam naa loolu maa la tooñ man maa la tooñ. xam naa nag sonn nga ci wax ji. waaye man maa la gën a sonn ñu. koor gi daa métti sax man sax man sax dama. ah ñu toog waxtaan. ja salaamaaleykum. Modou Mbaye. awa bu dul gërëm ñu noonu ñu ko jublu njëkk baax. wóotu na lii kenn du yow. xanaa wóoroo. Mbaye laaj bi doon faal xanaa wóoroo. yaa toogal. sëñ bi xamante ne chaque jour rek ñëw. saa boo ñëwee rek andi ñu koor lañu ci weeru koor lañ nekk mënoo toog sa kër. sa yow mi doom fott nga. ak sama yére ci basan. bokkul ma la lii. ci basan gi ngay toog yow. VIP laa de damay def suuf VIP. namu naa leen nag. tey nag wax dëgg yàlla sama jabar sama xarit ñëw ma fi pour xuloo ñëw ma fi pour xeex. damaa ñoom uniquement pour baalu ci la ak damaa bëgg rek nga baal ma ak moo tax tey ma ñëw fi la paix laa indi gis nga jàmm laa indi tey. yow moom chaque jour saa boo ma àndewul nag yóbbul ma yow kañ ngay bàyyi sama kër gi ay yow mi fatt nga ma di xanaa man kër gi amatuma ci dogal wala sëyu ma. yaay sama jabar yaay sama xarit. maa la takk woon jële ba ba pekkees indi la ba fii nii. boo ma jëlee ba pekkees it yaa ma toroxal yaa ma takk jële ma ba pekkees andi ma nakaaru njaay gi waaye yaa ma toroxal digg bëccëgu nar jaratuma dara ci dëkk bi soo ma àndilee tay bu lii rek bu subaa nga andee ma la ca des daal yow yaa ngi nii rek yow daal kenn mënul ci yow dara yow daal yow merci rek. yaay booy man la toll mun lii nii takk bi nii nii ni nga ko yëgee nii man noonu laa ko yëgee kii noonu la ko yëgee moom nijaayam bu bokk ak yaayam ndey ak baay moo ko takkal jabar jox ko waa Louga nag comme ñoom loolu lañ xam. seen seen seen deret il faut ñu tuur seen biir néegu sëy. noonu lañ noonu lañ. yow ku la wax loo yow kañ ngay noppi. yow moom ñàkk jom yow moom yow yow ñàkk jom ci yow la fekk baax ku la wax loo doo noppi. def nga sa gune weng kay ba pare nekk nañ ci jàmm bu fi waa beneen ay. xam nga moo moo loolu noonu. lu ngeen def rek kii mi moom nijaayam. xam nga tamit ci gone faramaareen la bokk dañ koo wóor ne ko mel ne la jabar. fi mu toll nii baal ma coow jàmm nañ ñooy. yéen la rek yow daal yow merci rek. man daal seen waxtaan sax xajuma ci. su bokkul ma la lii yow ñàkk jom. sëñ Ba mu gën a rafet tamit déedéet. am di boo ñëwee neen baal ma àq li dañoo juum point final waaye nekk fa ay ay ay nijaayam ay farama ay daa la waxoon ko kër wax naa ko jeex na xam na loolu fu ñu bokkee jeex na. ma ah, mais wax naa xale bi ne foog ma ko mu dégg te loolu yëpp waxuma ko. dëgg fu mu toll nii mais koo ci dëgg. wax dëgg yàlla mënoo takk ñaari jabar yor aaw ak seeni mel ngi ni tilim déglu ma la nga takk xale bu ndaw kii laa bu baax naan lu baax man nag wax dëgg tey li mooy xale nga takk xale bu ndaw muy xale faramaari damaa bëgg nag wax dëgg yàlla li ngay joxe kii ñaari fanam nga koy jox ñaari fanam bon bàyyi bu néegu nu ko liberté provisoire la ñuy bàyyi bu ñu mu daal. am na provisoire. yow xaar dugg. yow yow sa awa yow sa ñaareel. waaye wax yaa ngi koy gis moom. mani la koy gis. premier jour weeru koor gi xaar naa la ñëwoo man nag fa laa ndogoo demoo waaye man dem naa. ndogu la eh, fa déedéet eh, eh, defal nga. Hmm. ndogu fa bu rëy defal ndànk yow kan moo kan moo la ndoguloo. yow da du ma ndogu ji maa ko taxi woon bi maa ko takki woon indi ko ci kër ga tëkk fa. kon bu la gisul xanaa war na maa mën a gis. yow lislaam rey na yow mii la lislaam lay yow mi yor sa ñaari jeeg di doog fii. te moom fële loolu loolu rey loolu paralysé la. waaw mais yow laa rey. waaw léegi de la laa la yëgal wax ji pour mu gudd ak pour mu gàtt mooy kee xale la kii mag la bërëm ndey la daanaka léegi jox ko ñaari fanam jox ko ñaari fanam man nag boo demul dinaa la jox ko ay ñaari fanam. ah ba dafa dafa ndànk. léegi xam nañu def xam nañu def léegi yow jéemal yox ngi dégg doxal dox bi rek man après xaw taxawal ci maire Nogay. ci ci taawul maire Nogay. maa lay fekk bu ñuy. la xamal de. premier jour yor koor gi. foofu. loo xalaat fromage croissant bi def xeetu tey boo xam ne amut. nga tardé ko man faa dem toog wér nga dem rek sa waay. Ah, ah. ba bëri wax demal rek yow demal rek demal